أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla doole xewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu jéemantu suñu kentolaay kattan jéem a defante ak yéen fàttali bi te mooy samaratu taqwa fi dunia wal axira mooy meññeefu ragal yàlla ci àddina bi nu nekk ku ci gëm yàlla am ragal yàlla lan nga ci jële waaye tamit ragal yàlla boobu ki ko deewaale yóbbaale ko alaxira lan la ciy jële loolu mooy ñaari tomb yoo xam ne su fekkee waxtu wi may nañu ñu jéem ci def fàttali bi incha allah ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun ñuy wax ak yéen ñuy déglu yëpp yal na yàlla jëriñu ci awalan mooy ñu yëg ne ragal yàlla lu yàlla sàkku ci ñun la bi ko yàlla sàkkoo ci ñun bëgg ko waxu ko rek daan ne ragal leen ma mu jeex waaye daf ko jaral mu yónni ay yonent pour yonent yi fàttalu ne dana war a ragal yàlla yemul ci loolu mu wàcceel ñu ay téere téere yoo xam ne buñ ko jàngee day tax ñu ragal yàlla yemul ci loolu mu sant ñu ay mbir yoo xam ne suñ ko defee dañuy am ragal yàlla moo leen ibaadaat jaamu yàlla yi ñu yàlla sant yépp suñ ko defee ñu ngi ciy jële fa muy jeexe ak ñun mooy ragal yàlla yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaqun yéen nii jaamu leen ma man yàlla man yàlla mi leen bind man yàlla mi bind ñeneen ñu leen ci jiitu woon démb dafa mel ne dañoo laaj yàlla waaye yàlla tax ñu lay jaamu mu ne pour ngeen am ragal yàlla mboolem ibaadaat yi yépp lu muy jural nit ki koy def mooy da koy jural ragal yàlla bokk na ci koor gi ñu paas yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun gis nga ibaada bi sànq yàlla waxoon na lu tax suñ ko defee lan lañ ciy jële koor gi yàlla wax na suñ ko wooree lan lañ ciy jële mooy lan ragal yàlla xatta ku rey nit nañ ko rey suñ ko defee liñ ciy jële mooy ragal yàlla wala kum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaqun yàlla mu ne ku rey nit nañ ko rey loolu bu ngeen ko taxawalee sant ko ci kaw suuf wan ngeen ci jële fu mu leen di yóbbu mooy ngeen am ab taqwa ngeen am ragal yàlla xatta alquran téere bi li tax yàlla wàcce ko mooy pour ñu am taqwa xuzu ma ataynaakum bi quwa wazkuru ma fiihi laallakum tattaqun li ma leen indi jël leen ko jël leen ko kattan jël leen ko ak doole lan la leen di jural bi ngeen ko jëlee moom téere bi yàlla ne da ngeen di jël da ngeen ci am ragal yàlla kon leer na suñu bopp xataa tabaski nit ki jëm alalam dem jënd kuy mu rëy ñëw samp ko ci biir këram daal di koy rey lan la ci jële mooy ragal yàlla lan yanaalu llahu luhumaha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na du yàpp bi laa soxla déedéet du deret bi laa soxla xam nga lan laa soxla li nga xam ne moo la poussé yow jullit bi ba nga dem di def loolu lan la lay jural mooy daf lay jural ragal yàlla xataa añ màkka ki koy def lan la ci jëlee ragal yàlla fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa kon ci muqaddima bu gàtt bi bu ndaw bi leer na suñu bopp ne santaane yàlla yëpp li tax yàlla sant ñu ko bu ñu ko defee lan la ñuy am mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy lan mooy def li yàlla santaane bàyyi li mu tere loolu mooy ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ittaqillaha haysuma kunt ragalal yàlla fépp foo mën a nekk gis nga nit bu ragalee yàlla xelam day dal tey dëkk bi bu ñëpp ragaloon yàlla rek jàmm dong mooy am kon jarul ñuy tuub ay agression jarul ñuy ragal sàcc jarul ñuy ragal dara kon ku mu neexoon nga lal fi sa basang daal fi panaam fekk bi nga fi tëdd sa rajo ak sa bagage ak lépp mu sa wet soo yeewoo fi nga koy fekk kenn du ko jël parce que lu tax ragal yàlla te yonente alayhi salaatu wasalaam génnul àdduna lu dul yar na xeet woo xam ne ñëpp dañoo ragal yàlla biir ak biti nit day dem tooñ yàlla fu kenn fekkewul moom dong ak boroomam te su nekkee jàmm rek mooy am seen yëgu ko waaye day ñëw ba ci yonent bi conscience am moo dul tranquille day ñëw ba ci yonent bi ne ko def naa bàkkaar laabal ma jàngeen histoire Maaz Maaz ak soxna si mu ëmbaloon soxna si ba mu yégee ne ëmb na dafa ñëw ba ci yonent ne ko njaaloo naa laabal ma kan moo ko fekke bi mu njaaloo kenn fekki moom ak yàlla waaye yonent dafa yaroon ay nit bu ñëpp ragal yàlla ba nga xam ne nit bu fekkoon ci milliardu jàmbur da koy romb du ko laal xeet boobu la yonent bàyyi woon keroog ba ndaw si ñëwee ci yonent bi ne ko damaa def bàkkaar damaa bëgg nga laabal ma balaa may dajeeg sama borom bi yóbbaale bàkkaar bi yonent xam na ndaw si li mu def bàkkaar bi mooy dañ ko war a rey yonent bëgg na ko ubbil bunt pour mu tuub ndaw si wax baat bi yonent bañ ko dikk mel ne di wax feneen ndaw si toogaat ci kanamam ne ko yow laa wax damaa def bàkkaar damaa bëgg nga laabal ma mu ne ko demal ba nga am doom xanaa kon mënoon naa daw génn dëkk bi dem beneen dëkk du dëgg parce que tey mën ngaa def bàkkaar ci koñ nga génn koñ boobu dem beneen koñ mais loolu ki koy def mooy kii nëbbatu nit ñi waaye yàlla moom foo dem mi ngi teg ay bés ay gisam ci yow mi ngi mboolem place yi ci xam-xamam ak kattanam kon mënoo koo nëbbu yàlla bu mu yónnee yonent yàlla Muusa ak Haarun dana leen dem leen inni maakuma asma'u wa ara dem leen maa ngi ànd ak yéen maa ngi gis di dégg man yàlla ndaw si daal dem ba am doom bi mu amee doom ba pare rek dafa ëmb doom ji daal di ñëw ci kanamu yonent bi ne ko xàmme nga ma yonent bi ne ko déedéet mu ne ko maay ndaw si njaaloo woon ñëw ne la damaa njaaloo laabal ma nga ni ma demal ba nga am doom am naa doom démb ci guddi doom jaa ngi nii yonent ubbilaat ko beneen bunt ne ko demal nga nampal ko ba mu fer xanaa mun naa dawaat mu dem nampal doom ji ba mu fer pour bii paa bëggul yonent delloo ko mu jox xale bi mburu ci loxoom jàpp ci loxo bi di ko ummi ba mu ñëwee ba ci kanam yonent bi mu toog mu ne yonent xàmme nga ma yonent bi ne ko déedéet mu ne ko maay ndaw si njaaloo woon nga ni ma demal ba nga am doom ma am doom ñëw nga ni ma demal ba nga na- nga nampal ko ba mu fer nampal naa ko ba mu ter mi ngi nii gis nga mën naa yëy mburu yent bi daal di wax benn saxaaba na jël doom ji yara ko yent bi ne axiimu xaddallahi alayha def leen santaane yàlla ci kawam ñu sang ko ay sërëm saxaaba yi jël ay xeer commencé ko dóor xaalid ibnul walid jël xeer bu rëy bu toll ne pris daal di koy dóor ci bopp bi bopp bi tasaaroo lan la yonent wax xaalid ndànk yaa xaalid dafa ndànk ndaw si tuub na tuub boo xam ne law zana ahlul madina aw saribul xamr la wasiathum tawbatu hadihi lmara waa madina yëpp njaaloo woon mbaa ñu naan sàngara mbaa ñu tooñ yàlla ba fu tooñ yem ndaw si tuub na tuub boo xam ne buñ leen ko séddale woon ñoom ñëpp dinañ ci dugg aljanna kon dafa ndànk kon gis na yonent dafa yaroon xeet wu ragal yàlla Omar ibnu Xataab fekk na benn sàmmkat ci àll ba mu koy seetlu ne ko ñun de dañoo génnoon te jamono yi ñu toll dañoo xiif dañoo bëgg sa xar yi nga jaay ñi ci benn ñu lekk sàmm bi ne ko moom na ko mu ne ko boo demee nga ni borom xar yi till bi till yi ñoo sang ñoo sang benn xar sàmmkat bi daan ne Omar ay na laa Omar daanu ci suuf daan ne kii warul nekk sàmmkat wala ku ragal yàlla ba nekk sàmmkat nekk ci àll ba di contrôler yàlla kenn nekk fa loolu mooy ragal yàlla ki ragal yàlla day yemale fi mu nekk ak fi mu nekkut fuñ ko gis ak fuñ ko gisut yëpp day xalaat ne yàlla mu ngi ànd ak man ñi ragal yàlla doomu ndey yi ñun ñoo am bénéfice adduna ñoo am bénéfice àllaaxira ragal yàlla day jeexital ci société li tax tey Sénégal mun ta baax mooy nit ñi ragalul yàlla bu fekkoon ne da ngay dégg ñu ne dëkk bi quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay musulman lañ waaye au contraire quatre-vingt-quinze pour cent yi naafeq lañ ragaluñ yàlla ñaata nit nga fi dénk sa alal déglu leen rajo bi ci defam par par sept heures wala huit heures chaque jour waajoy si dëkk joxaane lu xew tey chaque jour looy dégg ku ñu triande ku ñu nax njublan toppale saay saay fen wuri trian toppale lekk riba yaaloo loolu du ragal yàlla société mënta mel noonu baax yàlla ba muy attiré waa kaw suuf dane ñaar bu ko waa suuf defee rek jàmmaam ñaari ñaari mbir bu ko waa suuf defee rek jàmmaam walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw waa kaw suuf bu ñu gëmoon yàlla ragal yàlla rek mu ne la fataxnaa alayhim barakatin min alsamaai wal ard ma ubbi xéewali asamaan mu ñëw kon la moo tax xéewali asamaan ñëwul mooy dañoo ñàkk ngëm yàlla waaye ñàkk ragal yàlla kon doomu ndey ragal yàlla dafa am njëriñ dafa am solo yàlla sant ko ñëpp xataa yonent yi yàlla daf leen wax nañ ragal yàlla yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wàcce ci moom ab saar taqillah yow yonent ragalal yàlla mboolem yonent yi baat boobu ñoom ñëpp ànd nañ ci waaraate ci mooy ragal yàlla lu tax parce que mooy base bi mooy fondement nit bu ragalee yàlla jaratul contrôler borom bitig bi bu ragalee yàlla jaratul ñuy contrôler lu muy jaay ministre bi bu ragalee yàlla jaratul ñuy contrôler li muy defar soudeur bi bu ragalee yàlla jaratul ñuy xool ku nekk ci ñun bu ragalee yàlla la ngay def kenn dootu ko fekk ku nekk ci ñun xatta kii jaay ba ca marché ba bu ragalee yàlla mbir mi kenn dootu ko xoolati waaye lu tax société bi mel nii mooy ragal yàlla moo jëlul palaasam ragal yàlla dafa manqué ci xeet yi moo tax ñu am crise morale balaa crise économique di am kon ragal yàlla ci àdduna bu njëkk bi ñi ragal yàlla ci àdduna lan lañ ciy jëlee mooy al intifaau bil quran wal ihtidaai bihi suñu ragalee yàlla ci àdduna dañ dañuy jëfandikoo alquran alquran bi dañ koy jëfee yàlla moon ko wax ci suratul baqara mu ne zalika al kitab laa rayba fii hudan lil muttaqin téere bi bi alquran dikki sàkka nekku ci te téere bi njub la ñeel ñi ragal yàlla kon tem bu njëkk bu waa suuf di jëriñu ci ragal yàlla mooy dañuy da leen di permettre ñu jëfandikoo alxuraan doo dañu def alxuraan téere barkeelu doo dañu ko def téere boo xam ne bala ñu koy jàng am ku dee doo dañu ko def ziñla doo dañu ko def groupe kaamil kenn dootu ko ut pour orne ko sa kaw table mbaa sa armoire mbaa sa oto mbaa sa baye mbaa sa bibliothèque la kenn dootu ko jamb di naan kenn dootu ko takk boo waxee mu ne la bon je suis blindé ayatul kursi mu ngi fii amana rasul mu ngi fii laa dootul nekk pour loolu téere bi pour lan lay nekk hudan lil muttaqin gis nga day nekk njub pour ñu ragal yàlla kon tomb boobu ñàkk nañ ko li tax ñu ñàkk tomb ragal yàlla boobu su jëfandikoo alxuraan te alxuraan yàlla da koo wàcce woon ci kaw suuf pour ñu jëfe ko yàlla bañ na ba ne kaamil bi pour ñu dund la du pour ñu dee mu ne lan li tunzira man kaana hayyan suratu yaasin mu ne alxuraan bi du pour ku dee Sénégal bala nga gis ñu jàng alxuraan ñaar weeru koor ak ku dee saa yoo gisee Sénégal ñu toog di tafsir weeru koor lañ nekk saa yoo gisee ñu toog di ko jàng dafa am ku dee te kooku dee mën naa nekk koo xam ne faale wuloon alquran ɗum min kirndiri ah téere bi yàlla waxul woon nan bàyyi ba nit dee ñu ñëw di ko jàngal waaye yàlla dana woon téere bi nañ ci waar waa ji balaa ñuy dee léegi nag ñun dañu bàyyi nekk waa ji mu nekk benn rappeur wala mu nekk benn gaynde wala mu nekk benn njaalookat wala mu nekk benn agresseur ba mu dee ñu ñëw jël alxuraan bi di ko jàngal malheureusement da nga xam ne téere bi moment boobu ñu koy jàngal téere bi dañ waa ji dañ ko yëkkati biir bàmmeel naan ko déglul li yàlla doon tere yëpp yaa ngi ko doon def déglul gaa yaa ngi jàng bu yeggee ba jàng egg ci aaya bu wax pour problème pays bi fekk waa ji doon see pays bi ñu ne ko dégg te bàyyi woo ko woon bu eggee ci njaaloo ñu ne ko dégg bu ñu eggee ci riba ñu ne ko dégg ñu ñu egg bu ñu eggee ci musique ñu ne ko dégg te bàyyi woo ko woon bu ñu paree ñu ne ko say mbokk àtte nañ la ndax lu waay yëpp liir nañ ko suñ jàppoon sa benn sa benn mbokk fekk sàcc la ñu jàpp ko yóbbu ko tribunal yow nga ñëw naan dama bëgg damaa bëgg ñu bàyyi ko nga ñëw jël luwaa yi naan article nangam day dafa tere ku sàcc waa ji da lay mere parce que yaa ngi koy atte kon nag ñun ni ñuy ñaanalee fii suñuy dee ñi du noonu ñun au lieu ñu ñaanal leen pour yàlla baal leen mooy allahumma xfir la warhamhu duñ leen ci loolu day ñëw di liir aaya bi yaa ayyuha allazina amanu la taqrabu zina musiba am na fekk waa ji zaan yi la woon wattaqullah wa zaru ma baqiya min arriba fekk lekkas riba la woon malaaka yi naan ko dégg nga gaa yaa ngi jàng luwaay de waaye loolu mooy alquran alquran def leen la ak bàyyi leen kon duñ bàyyi ba nit dee ñëw di ko jàngal kon kon bu njëkk ci alquran ci ñu ragal yàlla jëriñ bi ñuy am mooy dañuy jëfandikoo alquran parce que alquran mooy tax nit ragal yàlla alquran saa yu ko nit jëlee def ko ci kanamam jàpp ko ak ay loxoom waaye wala mu màtt ko ak dëgëñam day am ragal yàlla yonent sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee lu mu waxoon bàyyi ne lan ñaari mbir su ngeen ci jàppee lan tadillu baadi lan la indi lan lan tadillu baadi ma in tamassaktum bihima kitab allah wa sunnatu rasul bàyyi naa ci ñaar rek bu ngeen ci jàppee jub saa yi ngeen ko bàyyee dëng moo tax tey ñu dëng parce que dañoo bàyyi njubal yàlla topp ay sàmbaabooy loo ci gis loo ci gis ñu wari juróomi wari parce que dañoo topp yàlla topp ñu yeneen islam dafa am njiit ki ko jiite mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam islam dafa am royukaay kan lañ war a roy mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu bàyyee yonent bi ku nekk jàpp ci sàmba ñi jàpp ci demba ñi jàpp ci yero yero jaar nii sàmba jaar nii paata jaar ne moodu jaar ne yoon yi bari azahuwa ñaareel bi ci samar taqwa ayyuhal ixwa mooy taalimullahi lil muttaqin ku ragal yàlla yàlla moo lay may xam-xam wattaqullah yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla jàngal leen xamal leen mooy kat yàlla doo am xam-xam mukk imam Shafii benn waaye dafa ñëw ne ko man daal damay jàng mais du ma mokkal damay jàng ba ni ar du ma nelaw guddi waaye dara du dugg mu ne ko da ngay mooy yàlla bàyyil mooy yàlla parce que xam-xam leeraayu yàlla la moo tax mooy kat yàlla du am xam-xam day sono boppam rek nga bëgg am xam-xam di fanaan ci baal yi bëgg am xam-xam di fanaan ci soirée yi bëgg a sell di fanaan ci xale jigéen yi wala ngay fanaan ci xale góor yi doo am dara ba ba ngay dee tus nga du xam loo jàng dafay nga gis si baabu moo ko lu fatiha lu tax parce que ba mu ci tollee au lieu mu ragal yàlla jàng boobu sindkat la woon wala mu nekk mbërum làmb ba dafa retraité bëgg ne xaaral ma jàng fatiha lu muy wax yàq na abud yàq na sayin ku yàq na abud di yàq na sayin doo am ci julli gi dara loolu dafa war a leer suñu bopp mooy ka fi yàlla du am xam-xam yàlla nee na wattaqullah wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla may leen xam-xam ñaareelu tomb ci samaratu taqwa fi dunya siatullahi lilmuttaqin maiyatullah maiyatullah lilmuttaqin wala adduna bi li nit ñi bari bari bari bari bari yàlla ñan la àndal ñu ragal yàlla rek la àndal yàlla nee na wattaqullaha wa alamu anna allaha maa almuttaqin ragal leen yàlla te ngeen yëg ne yàlla mi ngi ànd ak ñu ko ragal yàlla àndul ak jundkat àndul ak ñu xoor àndul ak kenn ñu aji yàlla ñan la àndal ñu ko ragal dañu bëgg dañu bëgg yàlla ànd ak ñun lenn dong lañ koy amee mooy ñu ragal yàlla mooy lan ñu def li yàlla santaane bàyyi li mu tere ku def loolu yàlla ànd ak yow ñu nit ñi bari bari ci kaw suuf yàlla ñi fi ay gaam mooy ñu ko ragal naam ñi ragal yàlla ñooy gaa yi yàlla yi ñeenteelu tomb mooy sarful xawf wal xusn naam yàlla subhanahu wa taala doo fekk mu gaayam yi kenn ñu tiit ku ragal yàlla doo ra dootoo ragal kenn xam nga ñun tey dañuy ragal xataa boo gaa ñu ne non non yaa fi non non non c'est am na yoo xam ne ragal rek ragal haaza huwa ragal amma boo ragalee yàlla dootoo ragal keneen jaana yàlla loolu la wax subhanahu wa taala fala taxtawhum bu leen ragal kenn man rek mu ne wa iyaaya ah ñu jàng arab xam nañ loolu wa iyaaya farhabuni man dong na ngeen ma tiit ma tiit keneen boo ngeen ragal tey julli bi xam nga lu tax adduna bi mel nii julli nañoo ragal li tax adduna bi mel nii ñu ne nappaaje julli ñi di leen rey di rey massacre waa Palestine massacre waa Tchétchénie di wër Usaama ci biir adduna bi su julli ñu wax ñu ne leen alqaida la jàpp yow loxoy ci ginnaaw xam nga lu ko waral mooy julli ñi dañoo ragal dee waaye sahabatul kiram ba ñu gëmee ne ñaar rek mooy am ci adduna samp kàddu yàlla wala dugg àjjana jullit amul personnage ci àdduna doomu ndey ñun loolu la nga loolu lañ dugal suñu bopp yi dañoo ragal dugg kaso ragal ay karwaas ragal ay kën xat démb gaa yi démb ñooñ loolu dañ ci doon kontaan jullit amul personnage ci àdduna buñ la reyee nga dugg aljanna suñ la bàyyee nga samp kàddu yàlla jeex na yow kenn mënu taxee ak yow ibnu taymiya gaa yi dañ ko ne soo bàyyi li nga amee léegi dinañ la rey mu ne kon ma dugg aljanna ñu ne ko ñu tëj la kaso mu ne ma taalif ay téere julli ñu am xam-xam ñu ne ko ñu exilé la mu ne ma def tour du monde gën a am xam-xam jeex na lii mooy suñu problème tey bu ñu gëmoon yàlla ne wallahi fii ak six heures ku ci dee yàlla da la yóbbu aljanna kon fii balaa timis ñu samp adduna bi yëpp drapeau la ilaha illa muhammad rasulullah julli ñi ñaata lañ ci kaw suuf un milliard ak genn wàll sahaaba yi sampoon islam ñetti téeméer la ñu ak kon ñett lan la Xaalid doon wax gaa yi ataytukum bi qawmin yuhibbuna almawta kama yuhibbuna alxayaa gaa yi day laa xawla wala quwwata illa billah dee lañ gën a gëm ak dund parce que dañoo xam ne buñ dee dugg aljanna jeex na te objectif doomu aadama yëpp jullit ci kaw suuf lan la mooy dugg aljanna ak noo mënta dugge nag duggal rek almuhim na nga dugg na nga dugg mooy l'essentiel mais wallahi alazim jullit ñi ni ñu toowul day ci kaw suuf bu kenn jàpp ni danañ toog fii di conférence ba nit ñëpp ñëw nekk ay jullit abadan bu kenn jàpp ne danañ toog fii di jàngale ba ñëpp ñëw nekk ay sunnit abadan yonte moom dàq jàngale ayyuhal ahbaab alayhi ko zaalik yonte moom dàq waaraate waaye lu mu def dafa xeex ñu damm bëñ bi xuri óomi rey saxaabaam yi yonte ñaata xeex la xeex ñaata xeex la yonte xeex ah ñaata waqaati lu moo nekk ci alquran c'est ça loolu mooy suñu muskila tey loolu lañ defee xam te loolu fekk defuñu ko dañu sonal suñu bopp loo yendoo tabax bu ngoonee télévision Sénégal bi dindi ko lan ngeen di jooy tey ay suñu di amul formation loolu ngeen di jooy si ngeen di continuer nag lu ngeen yendoo tabax bu ngoonee Abdoulaye Wade dindi ko waaw parce que programme bi mu leen indil baaxul ñeenteelu tomb ci samara su dunya fil axira mooy sarful xaw wal xusni jullit bu ragal yàlla du am njàqare du tiit njàqare yàlla moo koy dindil tiitaange yàlla moo koy dindil yàlla nee na fa man ittaqa wa aslaha fala xawfun alayhim wala hum yahzanun ku ragal yàlla fa man ittaqa ku ragal yàlla wa aslaha mu defar yàlla nee na ñooñu fala xawfun alayhim dootuñu tiitati wala hum yahzanun dootuñu am njàqare jëna lu tax kon ñun ñuy tiit lu tax ñun ñu am njàqare taqwa bi moo def kon laa budda ñu am taqwa yàlla subhanahu wa taala nee na ñi am taqwa ci yéen dootu ñu am njàqare ci adduna bi waaye àllaaxira gën a ñu jëm warul ñu fay ci dara saabatu kiram loolu lañ gëmoon teg ak yàlla seen kanam sànni fële adduna jàmmaarloog noon yi guddi ak bëccëg ba samp kàddu yàlla yonent alayhi salaatu wasalaam génnul kaw suuf lu dul ci ñaar fukki at ak ñett la yonent dund islam ñaar fukki at ak ñett la ko yonent dund ñaar fukki at ak ñett la yonent dund islam samp kàddu yàlla ci jaziratul arab yëpp te benn nit la woon bi yonent génnee àdduna saaba yi fekk na yonent bàyyee na leen ak lu leer seen bopp ñu bañ a yemale mbir mi seen bopp loolu nga doon dégg li ñuy wax rus nañ dajeeg yàlla fekk ay nit di dee di dugg safara jotuñu diine bi rus nañ dajeeg yàlla ay nit dee jotuñu diine bi ñun xataa ci suñu koñ yi am na kër yoo xam ne ba léegi daawaa bi dugg ko kër ay kër ci mbedd yi am na ci koñ bi tey fii seen secteur bi am na fi ba léegi xamaguñ ñoo xam ne xamaguñ lan mooy sunna lu tax parce que mbir yi suñu bopp lañ ko yemalee te mbir mi du mbirum bopp mbirum yàlla la ak yonent bi lu toll ne lislaam lu toll ne nuur lu toll ne aljanna jullit du ko denc jullit du denc loolu chaque jour moo tax yoon sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu génne ci saxaaba yi daf leen ne fekk leen ñuy ree di wax mbirum yowmal xiyaam mu ne leen xam naa loo xam ne su ngeen xamoon li ma xam su ngeen xamoon li ma xam man yonent bi di ngeen jooy lu bari reetaan tuuti génn koj ñi ci mbedd yi wax ak ñoom waaye kon dootu leen bànneexu ci jigéen ñi kon doomu ndey ñeenteelu tomb mooy sarful xawf wal xasn yàlla nee na fa man ittaqa képp ku ragal yàlla wa aslaha mu yëwénal ku ragal yàlla ci say mbir nga rafetal say mbir lépp mu leer nga teg ko ci yoon wu leer amoo looy laq-laqal lépp nekk ci biti leer nañ yàlla nee na falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñooñu bu ñu tiitati ñooñu bu ñu jàpp juróomeelu tomb ci meññeefu ragal yàlla ci adduna mooy fatxul xayraat min asamaai wal ard mu ragaloon yàlla rek tey lan la la waa Sénégal di jooy tey lan la waa Sénégal di jooy boo dañoo bekkoor dañoo am crise lan la jeunes yi jooy liggéeyuñu kaw wa kaw gi ni ñuy jooy amuñu ndox yàlla nee na bu nu ragaloon yàlla yàlla dina ubbi magasinu asamaan xéewal yu sotteeku yàlla loolu la wax walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard walakin kazzabu fa axadnaahum bima kaanu yaksibuun allahu akbar waa kaw suuf buñ gëmee yàlla ragal yàlla yàlla subhanahu wa taala nee na dinaa ubbi xéewali asamaan barke bi daa di wàcc waaye waa kaw suuf dañoo weddi ma da yàlla mu ne walakin kazzabu weddi nañ ma dañ ma weddi lu mu leen jural mais fa axasnaahum man yàlla ma jàpp leen teg leen ay natt teg leen ay coono teg leen ay jafe-jafe lu tax mu nekkaa nu wax si biir parce que ñoom ñoo ko sàggu ñun jàppoon nañ ne tey am na ñoo xam ne tey jii fii nu toog dañoo jàppoon ne Sénégal day nekk réewum naataange bu fi Abdou Diouf jógee alal ko jaali non bu fi Fadi toogee gars yëpp ay normal laa xawla wala normal agum de xatalaan onom ngoor ah ba léegi yéen a ngi jooy te kanam la jëm nag xam ngeen lu ko waral mooy programme bi yàlla wàcc moom laa laa wàdd ba nga jël te programme bi yàlla mooy tax suuf ne ku moom suuf si xam nga nu mel nga tabax si kër ba pare def lépp yow yaa yor lépp yor magasin yeeg yëpp benn waay jóge ci xaj ñëw ci kër gi nga nga nga amal ko fa benn pantre mu naan moom mooy jënd sa kër gi affaire bi dangay jaaxal yow noonu la mel noonu la mel bu waa ji di koy naan nangam ak nangam naan bu soog yàlla kër gi dinaa ko toj toj ko étage sama moomul kër gi dafay dañ ko fay abal loolu de dañ ko abal benn pantre mu ne muy wax loolu waa kër gi nag naa leen dinaa leen sa allah dinaa leen fexe indil ay robinet caakiri lu waa kër gi wax waa kër gi buñ gëmee kooku ñooñu dañu dem alaaxira waaw ñun loolu moo nu dal yàlla moo moom asamaan yàlla moo moom suuf yàlla moo mun a nekk diggante asamaan ak suuf yàlla moo xam tey li baax ci ñun alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabiir kon programme yàlla bi ñu bàyyi ne dañuy jël programme nit dund ko fu mu lu muy jural baykat yaa ngi nii dañoo meroon Abdou Diouf ne dañ koy fal indi Ablaye Wade jàpp naa ne ba Ablaye Wade ñëwee dañoo dañoo dañoo gën a torox ñoom parce que lañ doon xeeb ci Ablaye Wade Abdou Diouf amuñu ko ci Ablaye Wade ça le problème kon ñoom dañoo yaakaaroon ne lii la fekk du loolu lu tax mooy yëpp yàlla lañ bàyyi feeg jëluñu alxuraanu yàlla bii feeg jëluñu sunna yonente alayhi salaatu wasalaam dañu sona suñu bopp da ngeen a bëgg àdduna neex da ngeen a bëgg kër yi neex da ngeen a bëgg Sénégal kenn du kenn dootu leen agressé ah da ngeen a bëgg xale jigéen yi sëyi bàyyi njaaloo bi da ngeen a bëgg góor ñëpp ku nekk am fooy sëy xaalis nekk sa poos ku la gis gis asarul ne am ci yow leen dong moo ñu koy may muy gëm yàlla ragal yàlla jeex na suñu gëmee yàlla ragal yàlla yàlla moo ñu yor wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha kon yàlla wax na nu mbir mi leer na walakin kazzabu fa axaznahum bima kaanu yaksibun bañ ma weddee di ma jéem a jaay dëgër bopp di ma jéem a jaay suuf si am nañ seen i robinet bopp yoon di rooseel di ma jéem a jaay am nañ seen i pexe ak seen i xam-xam am nañ seen i nangam banque ma ñaal ak nangam nangam yàlla nee na ma téye barke bi problème bi mooy barke barke ñu dina am xaalis sax fekk xaalis amul barke du dem na bëri da nga dégg ñu ne bëri la barke la ko gën ñun nag barke bi la yàlla dindi barke bi xaalis baa ngi ni français fa baa ngi ni barke bi la yàlla dindi barke bi mu ngi nii tey cinq mille lan la deux mille cinq cent ñu jàpp ni ay nit suñu moroom ay nit ah CFA bi kan moo ko defar gaay nit ñëw jox ñu ko ne leen ne moom ngeen di yore su neexee ñooñu téeméer bi ñu ne la yee téeméer bi léegi dërëm la xoolal mënoo ci dara say nit ay say moroom say moroom ñoo la ko def loo ci mën tus lu rek lu ko def parce que da ngaa bàyyi yàlla dem ci nit ki ne ko waaw yow yaay neexal sama dund mu ne la ko man maa koy neexal toogal ni xaar ma ñu nan ragal yàlla sun ragalee yàlla dénk yàlla suñu bopp yàlla mooy lijjanti suñu mbir juróom-benneel mooy alxibs min wasaisi seytaan meññeefu ragal yàlla ci adduna yàlla daf leen di aar seytaane du leen mënal dara ku ragal yàlla seytaane mënalu ko dara yàlla subhanahu wa taala nee na inna allazina taqaw gaa yi ragal yàlla ida massahum taifa min alseytan tazakaru fa ida hum mubsirun ku ragal yàlla seytaane ñemewu ko gis nga tey tey gis benn waay du ragal yàlla benn waay boo xamante ne ci taalibe seytaane yi la bokk seen ko muy ñëw waa jaa ngi yoroon cigarette bu ne jay jay seen waa ji di ñëw day sànni affaire bi fële daa di aj sax saxaar ñëw sa waay salaamaaleykum jaajëf waay salaamaaleykum di rek di xaar nga dem mu jël nago bi xoola Omar ibnu Xatab su jaaroon mbedd seytaane day dévier day daw seytaane ñeme wuloon jaar mbedd mu Omar jaar lu tax Omar dafa ragaloon yàlla saa yoo ragalee yàlla ku ànd ak seytaane da lay ragal du la ñeme parce que seytaane bi nekk ci moom soo nee tëll seytaane boobu day daw hada huwa al amru moo tax saa yoo gisee kuy def lu bon mu xam la mu xamee la iman xamee la islam nga ni tëll bu commencé même bu fekkoon xale bu góor bu takk jaaro nopp day gis mu ne ko tafat ci nopp bi dugal ba nga dem ni waaye sinon gaa bi laa ci yoon quoi non seytaane bi nekkoon ci moom moo dem yàlla moo ñu ko wax yàlla moo nañu ku ragal yàlla maa lay aar ci jax-jaxal seytaane jeex na kon ñun lan moo fi defati soo ragalee yàlla seytaane da lay ragal wala koor bu ñëwee lan ngay gis comme ni ñu dañuy ragal yàlla jàmm rek salaamaaleykum ko ne booy kan dem ko la dara subhana léegi ay xale jigéen yi band yëpp dañuy muuru capteur yi doon doon grand place sax dañuy kurus commencé dem jàkk di déglu tafsir parce que jawwu iman moo am jawwu taqwa moo am mbokk yi ragal yàlla dafa am njëriñ ci ay ay doomu aadama yàlla nee na ñi ragal yàlla juróom benneelu tomb alxibs min wasaisi seytaan yàlla da leen di aar seytaane du leen ñemee du leen laal juróom-ñaareel mooy ñoom azarf bil wilayatillah ñoom dañu am kontaan parce que dañuy faral yàlla xam nga yàlla yàlla ñan la faral yàlla nee na inna awliyauhu illa al muttaquun samay gaa man mooy ñi ma ragal ñi ragal yàlla ñoom ñooy gaawu yàlla loolu neex na de tey bu Ablaye Wade waxoon ci télé bi samay gaa nañ ñëw recevoir naa leen xale ku bëgg bokk ci sama gaa yi rek ñëwal amul sax këyit wallahi ku ko gëmu ku ko gëmul ak ñun ñëpp danañ fa buuxante ji lu tax bëgg rek mu ne kii sama waay la waaw ku toll na yàlla daan ne ñi wagal yàlla ñooy samay gaa ndax loolu jarul nekk ah kay jar na nekk waaye xam nga lu tax ñun duñ ko jéem c'est parce que mbiru yàlla daa sori mbiru yàlla daa sori te mbiru àdduna moom dafa teew dafa teew te ñun lu teew lañ bëgg da ngay dégg gaa yi ne pi yu fat moo gën tiyaawe xam ngeen pi yu fat yor sa yat më nëbbatu fii benn waay sur na ko nga ni ko pii li mu yoroon rek nga ni ko fat dugal sa poos ñu ne moo gën tiyaaba pi yu fat moo gën tiyaaba lu tax loolu parce que bii moo teew tiyaaba bi nag wóorugul tiyaaba bi wóorugul parce que tiyaaba yi foog nga dund àdduna dafa yàgg foog nga dee dafa yàgg foog nga dem barzak dafa yàgg foog ñu dekki dafa yàgg foog ñu dem siraat dafa yàgg xamaguloo kañ la ah kon comme lii nga gis da nga jàpp ci lii la hawla wala quwwata illa billah parce que lu ko waral mooy ñàkk am taqwa kon yàlla subhanahu wa taala nee na samay gaa mooy ñi nga xam ne mooy ñi ragal yàlla ala inna awliyaahu illa almuttaqun ñi ragal yàlla ñooy gaawu yàlla yi juróom-ñetteelu tàng ci meññeefu ragal yàlla ci àdduna mooy alxuruj min al azamat wa rizq min xaysu laa yaxtasib ay nit bu ñu ragalee yàlla yàlla daf leen di génneel ci jamono yu naqar yi ñuy dund yàlla daf leen di wërsëgal fu ñu ko foogewul woon yàlla nee na wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib ku ragal yàlla problème boo am yàlla mooy intervenir génne la ci xool yonent yàlla Moussa Moussa da doon sàmm ci àll bu doy waar Moussa yemul ci sàmm waaye Moussa dafa réer ci jamono joo xam ne mu ngi doon ñibbi ànd ak soxnaam ànd ak ay xaram ak ay déyam ak ay nagam Moussa réer mu jékki-jékki gis benn safara benn leer di tàkk mu ne jabar yi ak ñi mu àndaloon resté leen fii gis naa après benn safara ma dem xëy na ma fekk fa borom safara si ma laaj ko yoon bi fan la wala ma daal di jël foofu benn xamb ñëw taal fii boobu ñu jaaru comme dañoo dig Moussa ba mu jegee safara si mu dégg yàlla mu ne ki nekk ci wetu safara si barkeel na buuri kamam fi naar yàlla ko yow Moussa man maa yàlla innani ana allah laa ilaha illa ana amul benn góor bu dul man déglul li ma lay wax yow Moussa ubbi say nopp te déglul li ma lay wax tànn naa la def naa la yeneen lan moo ko may Moussa muy ragal yàlla dafa réer nekk ci jamono sedd nekk ci àll bu lëndëm xoolal yàlla dafa intervenir moo tax ragal yàlla am solo yàlla nee na wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haysu laa yaxtasib képp ku ragal yàlla ragal yàlla la ñu wax de ragal yàlla soo wéetee soo neweetulee fu la nit ñi gis fu la kenn gisul xam nga lan mooy ragal yàlla soo demoon tey ñu may la un million nga nëbb ko ñëw ba sa biir néeg nga teg xaalis bi di ko compter bi nga ko jalee ci kaw lal bi rek am ku fëgg nooy def dama laaj question bi fii kenn ci ñun fii ku ñu may deux millions léegi léegi bu conférence bi tasee mu dem jóor ko ci kaw lalam di ko compter rek am ku fëgg kon kon kon kon kon nu muy def jël mbaaj mi këpp ko ci daal di jël kaamil toog nag di aouzu billahi min ashaytaani rajim est-ce que loolu du ragal yàlla ragal yàlla mooy nga ubbi ko mu ñëw toog voilà xam comme ni la waay ni nga bëggee benn waay bett la ngay julli n'est-ce pas kan ma bëgg loolu ni nga bëggee benn waay bett la ngay jàng alquran benn waay bett la nga toog comportement bu rafet toog alayhi kasalik loolu doo senewu lu tax léegi waa ji fëgg rek fekk yow da ngaa yoroon xaalis yi ko compte waa ji fëgg rek nga tëg toog ci xaalis bi lan la daf la la ko da koy nangu waa dana ci ñaan wala da lay rey lu tax nga bëgg ñu gis la ngay jàng alxuraan te bëggoo ñu gis la ngay compte xaalis ah loolu mooy mbir mi allahu akbar ndeysaan loolu mooy suñu problème feeg yemalewuñ ñaar yooyu nag ragal yàlla ji amagul te loolu mooy ragal yàlla ji nga xam ne ni nga bëggee toog war sa kaamil di jàng benn waay daal ñëw eh est-ce que daal di ñëw toog kontaan nga fekk noonu mu fekk la ngay compter xaalis tamit du la gêné ñu mel ne rek ku la fekk nga toog doon naan ataaya nga yemale lépp loolu mooy ragal yàlla hada huwa taqwa ayuha al ahbab yàlla subhanahu wa taala nee na kon juróom ñetteelu tomb mooy jafe-jafe yëpp yu ngeen am man yàlla man maa leen ciy génn waaye man yàlla man maa leen di wërsëgal ba fu ngeen ko foogewul sax man yàlla maa leen di wërsëgal kooku moo doon samaratu taqwa fi dunya muy juróom-ñetti tomb yi amma samaratu taqwa fi l axira meññeefu ragal yàlla alaxira lan la bu njëkk mooy alfawzu bil janna wan najaatu min annaar mooy yàlla subhanahu wa taala daf ñuy musal ci safara waaye daf ñuy dugal aljanna mbokk yi kan ci ñun fii moo bëgg a mucc ci safara am na fii ku bëgg a mucc ci safara am na ñun ci fii ku bëgg a dugg aljanna lenn dong moo la koy may te mooy li yàlla subhanahu wa taala wax mooy saari'u ila magfiratin min rabbikum naam saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard uiddat liman lil muttaqin yàlla ne ne njëkkante leen njëkkante leen jéggalu yàlla njëkkante leen aljanna ji nga xam ne yàlla daf koo dencal dikko gaa yi nga xam ne dañ koo ragal aljanna kër la ñan la ko yàlla dencal ñu ko ragal yàlla dencalu ko kenn ñi ragal yàlla rek ñooñu la yàlla dencal kër googule waaye yàlla yemul ci lool de mu ne wa in minkum illa waariduha amul kenn ci yéen lu dul dana jéggi siraat siraat ñëpp a koy jéggi siraat benn pont la bu traversé kaw safara ku jéggi yaa ngi dugg aljanna ku daanu ci suuf yaa ngi dugg biir safara yàlla nee na su boobaa ñi ragal yàlla laay jéggal ñi ragal woon yàlla dama leen di pëttaxal summa nunjil lazina taqaw gis nga ñan ñooy jéggi ñi ragal yàlla ñooy jéggi ku ragal woon yàlla biir safara ngay daanu wa nazaru zalimina fiha jisiya te yàlla nag nee na amul kenn seen lu dul dana fa jaar wa um minkum moo tax ku lay jaay fii dara di la jaay ngand ngand la wala nangam ak nangam wala ñu naan diw ngand la dañ bàyyi ba diw moomu jéggi siraat te damir bi yàlla génnewu ci kenn de damir bi wa in minkum ku mën dara génneel sa bopp ci damir boobu amul kenn ci yéen ku dul malaaka dina ne zëcc sa doq poña la ba nga egg ci siraat bu max la ne la jéggil boo mënee dara nag fi ngay jéggi tey foofu la coow li feeg nit jéggiwul foofu nag jarul muy naagu jarul muy rëy rëylu waaw ñi xam-xam nañ ñi xamul ñoo xamul waaw olof nee na nandu te sonnul mbokk yaa sonn nang sonnul mbokk yaa sonn moom xam na waaw nañ leen jéem a nekk ay nandute waaw beneen bi mooy allah subhanahu wa taala nee na wamru ahlaka bisalaati wastabir alayha la nasaluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu li taqwa yàlla subhanahu wa taala nee na yow jullit bi digalal sa waa kër ñuy julli sa waa kër nag leen di sant ñuy julli waral tey ñun lan la ñuy tiitaroo ay jullit yu dul julli lan la ñuy tiitaroo waaw nga gis jullit dul julli nit ñi di ko tiitaroo allahu akbar ku dul julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna awalu maa yuxaasibu bil abdi min amali yawma alqiyama assala li ñuy njëkk a xool yawma alqiyama mooy julli nee na bu julli baaxee lépp baax bu julli bonee lépp bon nga gis kuy tiitaroo ku dul julli ñun bu ñu xamoon ñàkk julli li ci nekk suñ gisee ku dul julli dañ koy yërëm te mbooleem moyen bu ñu am wala lu ñu war a wax waa jooju dañoo war a dem wax ak moom xataa bu fekkoon ne bu ñu ko joxee suñu alal mu tàmbalee julli jar na ko ndax waa safara baleen waa aljanna laaje yéen waa safara lu ngeen doon xoola ba dugg safara lan lañ tontu maa salakakum fi saqar lan lañ wax qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo bañoon julli ku dul julli koo gis safara la jëm ak koo mënta doon ak koo yaakaar nag mani ku dul julli koo gis safara la jëm ku yaakaar képp ku gëm ku dul julli dina dugg aljanna yow mi ngi ko yaakaar safara nga jëm dégg na li ma de ma ni ku dul julli safara la jëm te ku ci am sikki sàkk yow safara nga jëm ndax yonente moo ko wax inna al ahda allazi baynana wa baynahum as-salaat yonente nee na man taraka salaat faqad kafara li nekk suñu diggante ak yéeféer yi mooy julli yonente nee na ku bàyyi julli yéeféer la yàlla lu ngeen ragal yàlla mu nekk ku dul julli safara nga jëm kon dafa jaadu ñuy wax suñu waa kër yi julli bu fekkee fii ñu toog am na benn góor bu fi nekk jabaram du julli bu yeboo na ci jël mesure na ko fase bu fekkee ne jigéen a ngi fi jëkkëram a ngi fi jëkkër ji di julli na ñaan baat ndax amul jëkkërub julli su nga demee ci hukmu taariku salaa lan la Useymiin wax soo amee benn mbokk du julli yéen a bokk kër gi nee na waar ko waxtaanal ak moom su bañee génne ko kër gi mbaayoo nga génn kër gi ba ko kër gi kon bu fekkoon ne da ngeen a war a bokk ceeb bool di lekk ceeb daganul nga lekk fu dul julli parce que daganul nga dëkkan moom ci biir kër benn ak seen ñaar ku dul julli bu papaam dee moom warul doon papaam papaam waru ko doon fekkee papaam day julli moom di julli warul doon papaam papaam waru ko doon um jur ku dul julli bu rendee xar mbaa mu rendi ginaar mbaa mu rendi lu ñuy lekk yow jullit bi waroo lekk nga dëkk ak juif nga dëkk ak chrétien ñoom bu ñu rendee nga lekk waaye nga dëkk ak jullit bu dul julli bu rendee doo lekk ndax dafa métti dafa métti jigéen bu ñu ko mayoon jëkkër timis jot mu dugg ci oto bi sëy ñëw jëma jëkkër ji ne ko jëma ñu julli ñaari ràkk mu ne ko man du ma julli du ma julli jullit laa mais du ma julli bu yeboo jëkkër ji ne ko jógal daan na ñu ko indi woon cere jeeg bagage yeeg yëpp sarax naa leen ko na dem bu doon jigéen la bu ñu may jëkkër mu ñëw guddi bu mu soytee mu ne jëkkër ji jógal ñu naat la ñaari ràkk sant yàlla xam ngeen sooy teeru sa soxna dangay def ñaari ràkk jógal ñu julli ñaari ràkk mu ne ko non man bon julli naa nii rek mais bon xam nga quoi du may julli laa ndaw soosu bu yeboo mu ne bàjjanam bi ko xam ngeen sooy teeru sa soxna dangay def ñaari waat jógal ñu julli ñaari waat mu ne ko non man bon julli naa nii rek mais bon xam nga quoi du may julli laa ndaw soosu bu yeboo mu ne bàjjanam bi ko indi woon bu ma fi bàyyi tey boobu dañ ko war a tax ci islam beneen bi mooy julli bu dul julli bu dee waruñu ko suul ci bàmmeelu julli ñi waruñu ko sang waruñu ko ñaanal yàlla na la yàlla yërëm waaw kon ginnaaw atte yi yëpp naka la ñuy mën a gëme naka la ñuy mën a nangoo ñun ñii di ànd ak ñu dul julli wala di di mara di mara ngay mara ku dul julli mu wóor na ne kii yéen a bokk koñ bi waaye yéeféer la nga angal ngay maraat moom soo ko rendee bul ko nuyu bul am ak moom sax salaamaaleykum parce que ku ñuy nuyu asalaamu ki ñu koy wax mooy jullit yoon saa sam dafa ne sax chrétien ak juif bu leen wax asalaamaaleykum laa tabda'u bil yahud wala wala nasara bi salaam te bu ngeen dajee ci ñoom yoon ne na ngeen leen xatal na ngeen leen tànc ba mu xam ne kii sama noonu la ñun tool la ñu waxoon ñun tey ndeysaan dañoo bàyyi la nga gis waa joo xam dafa am jabar jabar ji du julli nga gis benn boy ci koñ bi du julli du dem jàkk am na ci ñun ñu feeñ kañ lañ gëj jàkk coupe du monde lañ gëj dem jàkk fajar ñenn ñun fi weeru koor ginnaaw xëdd lañ gëj dem jàkk fajar am na jigéen ñoo xamante ne kañ lañ gëj julli fajar weeru koor bañ nee weer yi feeñ nag keroog lañ gëj julli fajar ci waxtu yi mushrikoon haula ab jullit boo xamante ne iñaane na yàlla jëwam su fakka soo sax day jaaxaan allahu akbar du julli abadan kooku du julli du jullit bokk ci islam te ñun tey loolu moo ñu sonal Sénégal li mu bëri aw jullit boo demee ci jàkkee jàkkee yi duñ fees jàkkee ji kañ lay fees mooy dimanche ci ngoon ak samedi ci ngoon parce que gars yi fay dem xam nañ ne takk am na fi bisaab guro deñu jàkka bi fees daal saa yoo gisee cinq heures dimanche jàkka ji fees bul laajte am na ku ñuy tàpp ci koñ bi bul saa laajte gisoo léegi-léegi cinq heures jàkka ji lu mu def dafa dëggal moo pare rek moo eppaani ko ko yàkkumal na woodi do voilà parce que takk la fajar bi nga xam ne takk amul gée bi nga xam ne takk amul xam ngeen fajar jàkka yéen ñi yittam ma jëm jàkka fajar yéen ci yéen ñaari raam ñaari rang ngay fekk ndeysaan benn rapide sax bi sax du fekk la xawla wala ko ana jullit ñi xoolal fii nu mu tudd leew na un bi yëpp boo fi doon compte kër catholique yi du mat dix mais jàkk yi du fees ana jullit ñi buñ waaw buñ waxoon nañ takk sëyi fajar wallahi jàkk bi plein lay def parce que bisaab ak gañe bi léegi nag jullit boo xam ne wala yonent loolu la wax nee na ñaari julli naa fekk mook du ko julli ñaari julli ku ko dul julli rek naa fekk nga fajar ak gee yonent nee na gaa yi bu leen wóoroon ni bu ñëwee ci jàkka ji fekk fa yaxu yàpp bu duur ah cam day fas dal yonent boo ko wax sallallahu alayhi wa sallam septième siècle la ko waxoon xadis yi di dëggu tey septième siècle la yonent waxoon ne xale yu góor yaa ngi nii bu leen wóoroon ne buñ demee ci jàkka ji fajar danañ ko fekk yaxu yàpp bu duuf bu ñu lakk ba mu ñor xon def ci lépp sam mais da nga gis gaa yor ay jaasi di jik di jiite sàppe premier waaw ba nga xamante ne buñ fa demee day sànni duñ fa am loolu waaye pourtant te lu rëy lu ëpp loolu lañ fa yande ndax julli fajar malaaka yi dañ koy teewee julli fajar malaaka yi dañuy teew inna qur'an al fajri kana mashhud lan la ulama tafsir wax ci qur'an al fajr muy salaatul fajr muy julli fajar mbokk yi ab julli li muy tiitaroo mooy julli yonente alayhi salaatu wasalaam su sonnoon danaan yaa bilaal arix naa bis sala bilaal noppal ñu ci julli allahu akbar wala yonente bu sonnoon julli lay def julli bu sonnee day julli ñun buñ sonnee ni ñu def ñun buñ sonnee nu def ñun bañ nañ ko sax ba bu ñuy julli dañ naa rey na gaawa parce que amuñu jot quoi ay gis ku julli naan nii bañ nga ko ba naafile dañ naan jàkka rapide ku bañ sa tas ñoom moonte fa ngay dem jàkka rapide dóor mu daanu imaam bi day dóor julli gi mu daanu julli gi ñu dóor mu daanu moo tax it lu mu jëlee ci julli yàlla dana woon inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli day tere nit def lu bon loolu nga doon léegi julli gi lu mu def tere na kenn def lu bon te fekk ni nga jullee du noonu julli goo xam ne yow bi ngay jàpp njàpp mu baaxul njàpp mu yëpp ay shirk la ak bidaa bi ngay tàmbali da ngaa ñëw rek wàcc liggéey tànk ndox guux commencé du noonu awalam du noonu te fii Sénégal genn wàll gi yëpp dana dem jàppale ilimaan muy jàpp baal nit ñi commencé raxas loxo bi guux ndox mi bu bëggee wax sax ma ma ndox maa ngi ci biir baaxul ah jàpp bi yëpp ay bidaa la ba ba ngay pare njàpp nga gis waa ji bu ñu pare bidaa lañ koy ubbee bidaa lañ koy tëjee est-ce que loolu bokk na ci bokk ci ku gis dalil bi na ma ko wax bokk ci nii jàpp ba pare jël ndox bokk ci jàpp waa bidaa nga ko ubbi bidaa nga ko tëjee foofu lu mu baaxee nga ñëw ci julli gi nga ñëw ci julli gi julli gi kàbbari baaxul njàng mi sellul baaxul rukoo yi matut sujjóot yi baaxul yonte saa salaam nee na sàcc bi gën a bon sàcc yi mooy sàcc bi sàcc yàlla saxaaba ji kiraam ne ko naka la ñuy sàcce yàlla mu ne kii julli njàng mi matut rukoo yi matut sujjóot yi matut kooku sàcc buy sàcc yàlla la day mel ne ginaar wala buy sujjóot sujjóot am na ñoo xam ne buy sujjóotee dañuy mbëkk ñaar yoon rek yooga topp dëg am na ñoo xam ne bu ñu rukoowee bu ñu jàppee seen oom amul sujj allahu akbar jàpp oom nga defee day sujj mu ne allahu akbar pare salaamaaleykum salaama lii lu mu ci lii ah wala boo demee jàkk bu ñu sujjootee dernier sujjoot bu ñuy sikki bi limaan waxee allah da ngay dégg ñëm ne allah lu enfin loolu amul ci julli bu fekkee am na fu ngeen ko gis wax leen ma ko maa ngi nii balaa may jël man ku ma indil dalil ma bàyyi lépp lu ma doon def topp la voilà amul ci julli enfin amul ci julli te fii yëpp loolu la ñuy def enfin sikki jàkk ji nii allah loolu amul ci julli waaw ñun suñu julli baaxul julli gi nag bu fekkente ne du ñëwee solo lu baax da ngay ko def da nga ko def lu bon te yoon saa salaam nee na boo jullee julli gu bon neen dañ koy lem ba mel ne bal tënk ñun ndulli la ko sa digg ginnaaw ne la bayyaaka allah kama bayyaaka hadihi salaam ni nga sànke julli gi yal na la yàlla sànke noonu saa yoo jullee julli gu bon loolu la julli gi di wax ni nga sànkee julli gi yal na la yàlla sànke noonu dégg kooku benn la nga ñëw ci jigéen ñi jigéen dañ ne buy julli tànk yi bu feeñee yàlla du nangu julli gi lan moo war a feeñ ci yaramu jigéen ci julli kanam gi ak loxo yi seen koy fii jigéen ji julli baat bi nekk ci biti nag faar yi nekk ci biti ah jigéen ji julli yeel yi nekk ci biti jigéen ji julli bopp bi nekk ci biti kaala gi fii la ko teg fii li lépp digg bopp bi mu ngi génn nopp yi mu ngi génn baat bi mu ngi génn te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen buy julli bu tànk yi génnee yàlla du nangu julli ana ko julli googu te ñun ñëpp loolu lañ gis suñu biir kër yi kon ndeke mbir yi lu garaaw la mbir yi lu garaaw la doomu ndey yi lu ñu war a taxawaat la samaratu dunya fil axira bokk na ci liñ ciy jëlee mooy wamru ahlaka bis salaa digalal digalal say doom say njaboot nañu julli buñ ci yem de wasbir alayha na nga muñ ci julli ci na nga muñ ci jaam ci fa dafa nekk xool julli sa war tëgg ba fajar tëgg ba cinq heures demi nga dégg faa yi commencé nodd fekk yow amaana bi ngay tëgg da ngaa sonn amaana dafa sedd ah loolu borom iman rek moo ko mën nga dégg nodd bi rek sànni sànni sànni mbàjj mi sànni sër bi nga doon sànni jóg sol say daal sànq si woon ndox mu sedd dugg ci di si sànni jàpp jën doon jàkk loolu mbokk yi sama mënu ko loolu ku yàlla jaral dara moo ko mën kon yàlla jaral la dara te pourtant ñu ne ñi suñu liggéey yi ñoree liggéey suñu liggéey nit ñu ñoree kan ngeen koy gis kuy liggéey bu xëy huit heures muy nelaw ba sept heures dem Dakar kan gars yi nga xam ne dañoo ragal tubaab yëpp tout le monde ba ci élèves yi ba ci élèves yi huit heures pile na leen fekk biir classe ñu toog waaye xoolal yàlla yàlla moom ba nga xamante ne taxawul ci nit ñi yor yaram naan ku demul jàkk fajar dinaa la caw kenn du dem ñëpp dañuy tëdd di nelaw ñu bëri duñ dem jàkk fajar jamais da ngay gis sax mag mu yeew bàyyi jabaram ci kaw lal bi mu tëdd di nelaw du ko yeew bu yeewoo moom day jël mbàjj mi sàngaat ko loola xam ne arta waaw peut-être ba ma ñëwaat dégg nga am ñoom du ñu yee seen doom jugal dem jàkk abadan benn mbokk dafa doon laaj mu ne boo amoon doom muy def seen deux mu jàng ba jour examen nga xam tey mooy examen bi nga yeewu cinq heures du matin tàngalal ko ndox mu sangu ba pare nga jël yére yi sëpp solal ko solal ko dàllam defal ko ndékki mu ndékki ba jour ba suur nga jox ko téeméer dugal ko sa oto yóbbu ko ba école bi muy jàngee ba ci classe bi nga ni ko classe bi la mu ne waaw nga ni ko toogal fii incha allah après nga dugg yëgoo rek mi di jot mu ñëw ne la papa man daal defuma ñetti màcc war quoi nga ne ko lu tax mu ne gis nga foofu nga ma bàyyi woon rek foofu laa tëdd rek ndeke nelaw naa kenn yeewuma ba ma tardé ñetti matière sa doom boobu noo koy def dama leen laaj de bu fekkoon ne kenn ci yéen moo jur doom boobu nu mu koy def fii loolu moo gën a tuuti ah minimum bu fekkoon ne nag da nga am benn doom muy def muy def muy def def defem ponkal xaw a xaw a toll na yow tuuti nga def nga yeewaat même heure def loolu mu dem ñëw ne la pas daal vraiment dama tardé quoi defuma premier jour bi quoi defuma dara saa yi ne ko lu sax mu ne ma dama dem ba foofu rek gars yi ne ma am nañ benn match quoi nooy def doom boobu bu fekkoon ne yaa ko jur ah bu fekkoon ne ku doon def bag la kooku moom ponkal la tolloo ngeen examen jour examen jot mu tàggule heure bu leer nga xam ne heure bi du tardé mu dem ñëwaat ne la non defuma quoi dama ñëw rek gis matière yi daal ma xam ne jarul ma koy def quoi parce que mën naa ko loo koy def bokkoon doom boobu yaa ko jur noo koy def ah waaw léegi nag xoolal mu ne kenn ci ñun bu sa doom tardé jàkk fajar yéen ñëpp nangu ngeen sànq ngeen ne ku nekk primaire da nga koy dóor kële moom da ngay simmeeku léegi nag ku sa doom tardé jàkk fajar bismillah naa li araka tafal looy def ah ñun ngeen dóor say doom ci ci ci du ngeen dóor seen doom yi wala gis nga mbokk yi dund bi la ñu laaj wala jour examen bi la ñu laaj wala nit ñi li ma ne àdduna moo ñu tax a jóg dund dafa métti moo tax yàlla subhanahu wa taala ba muy wax mu ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaasiin dafa diir ñun dund dafa diir dafa métti kenn rek moo ko mun def moo leen ku ragal yàlla kooku donc moo mun a dégg fajar ñu ne asalaatu xayrun min annawmi julli moo gën nelaw ñu sànni mbàjj mi jël ndox jàpp dem jàpp julli ñëwaat te pourtant mbir mi yàggul waaye xoolal seytaan ni muy wax rek mbir mi yàggul julli fajar ñaata minute la julli par bëri bëri matul juróomi minute allahu akbar waaye seytaan mu naan la ku bëri garaawul yàlla dina la comprendre non yàlla ku bëri non waay waay daan lay upp nga xaw a lii rek mu lu mbàjj mi rek nga bataar quoi subhanallah parce que danga ñu nodd yaa ko gën a dégg yaa gën a dégg nodd bi allahu akbar waaye seytaan moo naan la bul jëf julli dafa nekk moo tax mu ne la wastabir alayha na nga muñ julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee fan nga muñ ci nga yëg ne yàlla subhanahu wa taala nee na soxlawul ci yow wërsëg lépp loo liggéey yow yaa koy jël nga dundee ko waaye yàlla soxlawu ko soo liggéeyee waa nga xaalis koo koy jox yàlla déedéet sa bopp nga koy jox waa sa waa kër yàlla nee na laa nasaluka rizqan man yàlla laajuma la wërsëg laajuma la sa poos man li ma la laaj mooy nag ma jaam sa alal yaa ko moom man yàlla maa la wërsëgal yàlla nee na fin fin wala aqiba fii ñan ñoo ko moom mu ne li taqwa ñu ragal yàlla ñoo ko moom kon boobu mooy ñaareelu tomb ci samaratu taqwa fil axira ñettal mooy asadaqa arrabiha bénéfice bénéfice bu bëñ bi bénéfice bi am njëriñ alaxira nga koy amee te mooy lan al axilla baaduhum li baadin addu illa al muttaqin yàlla nee na ñëpp ñoo àndal fii di nga leen bàyyi di nga nekk say noon yowmal qiyaam ba mu des ñu ragal yàlla bu fekkee da ngaa àndoon ci ak ay rafet da ngaa àndoon ci ak ay disco ak ay disket da ngaa àndoon ci ak ay bandi góor ak yu jigéen ay gaynde ngeen ànd di sëmbaxal jamono lu nekk ngeen dugg ci crime bu nekk ngeen dugg ci yàlla nee na di nga bàyyi gars yi ñëw ci man ëllëg yowmal qiyaam seeni noon da ngeen di noonoo ñan ñooy daje yowmal qiyaam nekk ay mbokk mooy ñu ragaloon yàlla ñooñu dong ñooy nekk biir aljana nekkaat ay mbokk maanaam yàlla moo leen boole woon ci àdduna yàlla moo leen boole àllaaxira yàlla moo leen moo leen di ànd boole leen ba biir aljanna du ñu noonu al axilla baaduhum li baad aduwun illa al muttaqin yàlla nee na ñëpp ñoo gis seen ànd musiba boo ci gudd kon def ñu ragal yàlla wallahi moo tax benn waaye ba mu ci joxe misaal ba ne ñaari kilifa diine bu ñu toogee waxtaan bu ñu fàqali ko yàlla rek la ñaari nit ci diine bu ñu toogee waxtaan ba sàqalikoo yàlla rek la waaye mu ne ñaari nit ci politique bu ñu sàqalikoo seytaane taxaw na ndax kenn ku def mën a mbay foog naa bëgg danaa fexe ba mu wiir ñëw ci man non piège laa fëral ci fee li ma doon wax ak li ma doon kiiwee li ci parce que yàlla taxul kon suñu mbir na yàlla di tax bu ñuy ànd nañu bëggante ngir yàlla nañ nekk ay mbokk ngir yàlla innamal mu'minuna ixwa ay jullit dañu nekk ay mbokk dañuy bëggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit ñi ni ñu war a àndee ni ñu war a bëggantee ni ñu war a yërëmantee mu ne dañoo war a mel ni yaram yaram bi benn cër méttee rek yaram bi yëpp waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit ñi ni ñu war a àndee ni ñu war a bëggantee mu ne dañoo war a mel ni tabax al muminu lil mumin kal bunyaan yasuddu ba'duhu ba'd noonu la jullit ñi war a mel jullit bu nekk li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk jullit laa yumin ahadukum hatta yuhibbu li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ngëm yàllaam di mën a mat li dul li mu bëggal boppam loolu lay bëggal mbokkum ci digal ñeenteel tomb ci meññeef ngëm yàlla ci alaxira mooy istiqbaalul malaayika wasalaamu alayhim ñu ragal yàlla buñ demee ba faatu suñ demee alaxira malaaka yi ñoo leen di gatandu di leen teeru di leen nuyu yàlla subhanahu wa taala mu ne wasiqa alladina rab wasiqa alladina taqaw ila rabbihim ila aljannati زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم كنتم تدخلوها خالدين الله أكبر yàlla yàlla may lii ñaari groupe ñu nii dañ leen di escorté mais duñu bandi sàcc yeeg agresseur yeeg bandi yi buñ leen jëlee tribunal di leen yóbbu kaso dañ leen di escorté wala duñ leen escorté dañ leen di escorté de ay motaar ak ay policier ah Abdoulaye Wade dañ koy escorté escorté ñaareel benn allahu akbar du benn de sala dañ koy gaar de sala dañ koy gaar de escorté ñaari benn la du benn moo tax waa aljanna dañ leen di escorté ñoom bi ñu dem ci yàlla délégation la ñu nekk wax bi waa safara ñoom zumar la ñu nekk zumar xam nga lu tax duñ bëgg a dem ñett ñooy nekk fële ñaar taxaw fee kenn taxaw fële fii ñu dal nga doo ko daw waa aljanna nag délégation la ñu dem wax bi yàlla subhanahu wa taala nee na wasiqa dañuy jiital alladina taqaw gaa yi ragaloon yàlla fan ila aljannati zumra ñu leen jiital ñu nekk benn ah benn délégation jëm ci yàlla yàlla nee na bu ñëw bu buñ ci aljanna fan la ñu njëkk a ubbil aljanna yonente bi alayhi salatu wasalam moom mooy ñëw fëgg gardien aljanna mu ngi tudd ridwaan ridwaan ne ko kokkan la mu ne ko man la muhammad mu ne ko yow lañ ma wax bala may ubbil kenn naa la ubbil wante mooy fëgg bunti aljanna délégation bi dégg ñëw dikk foofoo jar a bokk mbokk yi ku bëgg a bokk foofu ci délégation bi fii ku ci bëgg a bokk fii lan moo ñu koy may lan moo ñu may loolu te di di nelaw ñaataa yinde soon si ah wala fii dañoo léeg ñu ne ku bëgg akara da ngay ñeme kaani da ngaa bëgg aljanna doo tëdd dina la naan yàlla na ma yàlla may aljanna waaye da ngay jóg nga def la sabab lu ñu bëgg xaalis yi ñu def ah dañuy ñafe da ngay gis ci ñafe ba am xaalis sam teg soo ko nee nangam mu ne la gaañ gis nga lii lii laa ko def dafa am benn xale papa ji dafa amoon xaalis bëri xaalis bi du jeex la am xale bi defaree ko def day jël xaalis bi di ko ñandu di sànni di toj kaas yi di yàq matériel kër gi paa bu jaaxle paa yi wàccoo rek waaw lii nag ah Modou de moo ko yàq benn bi rek mu ne Modou mu ne ah mu ne génnal kër gi mu ne laa def mooy xoolal xaw ma génnal xaw ma loo def génnal Modou génn dafa tàmmoon xaalis xamul nu mu def ah di commencé jël ndox ndox di raxas ay oto ñu koy saw mu jël sëmmiñ di gor ay matt di jaay ñu koy saw lii sax nit ñi di ñëw ci papa ji naan papa ji yow li nga def jaaduwul sa doom ji léegi ni mu mel yow li nga amee alal sa doom ji léegi baadoola bu gon la di soo sax daal yow bu nekk lay def ngir am xaalis bàyyi la ngay rek bàyyi ñu ne bàyyi leen rek boobu am ay fan ay weer ay at papa ji daal di koy woolu mu ñëw papa ji ne ko waaw léegi daal loo yor foofu sax papa ji daal mu ne ñu génn deux mille papa ji ne ko ma xool daal di jël deux mille ne ko lii ñaata fan nga ko liggéey mu ne juróom benn fan laa ko liggéey raw papa ji daan ne ne jël benn mille franc rek daan ne xeet rek mu tëb ma tabi sama xaalis yi dugg xam nga dama doon nii gis nga nii laa ko def ndax sama xaalis ah dañ ne ko ah waaw lu tax lu tax ngay rey sa bopp nii ci lii ma def ni mu ne kii góor gi nii laa ko def góor gi xool bul dof waaw dañ ne ko ah kon léegi xam nga xaalis ni muy jëriñ man tamit li nga doon def yàgg ba li nga doon yàq nii laa ko def xanaa xam nga léegi nag normal na nga normal comme léegi xam nga affaire bi gis nga affaire bi gis nga leçon yi yow da ngaa bëgg aljanna il faut nga jóg def nii jaamu yàlla yàlla subhanahu wa taala nee na aljanna marchandise bi seer la ala inna silata allahi xaaliya yàlla dane inna allaha ashtara min al muminin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna da ngaa bëgg aljanna da ngay jóg jaamu yàlla aljanna wallahi tëdd di nelaw di ko maye mais ñun ñun Sénégal sax bu ñu deful suñu kilifa diine yi yaakaar fii kan moo ci bëggoon aljanna di tëdd di nelaw te jàngal seen tur yi waxal seen tur yi Soxna Bamba da doon nelaw ah alaaji maag ba doon nelaw est-ce que ñun nii nii dundee ñoom noonu la doon dundee nekk ci suñu rappeurs yi nekk ci bande tv bi nekk ci xale yi jigéen yi di njaaloo guddi njaaloo bëccëg trian sàcc fen bëgg dugg àjjana waaw lan leen wax dëgg mani su bëgg jaamu yàlla su bëgg dugg àjjana da ngay jaamu yàlla loolu dafa war a leer suñu bopp suñu nag suñu bopp kenn du suñu tëree ku baax ba dugg àjjana jamais wallahi duñ ci nekkee di fon da nga jaamu yàlla naan da nga waakaar sëriñ ci wàll da nga waakaar alaaji maag wala da nga waakaar limaam laa wala da nga waakaar keneen bu ñu duggee biir bàmmeel rek àllaaxira day leen di dégg kenn mënul ko kenn tukk yàlla rek yàlla bi mu lay bind kenn fekkewul bi mu la bu la reyoo ah ñaata nit la fi yàlla rey te seen sëriñ bànk ba te ñu ci ñaata ñaata la fi yàlla xëy di rey sëriñ bi ñëw ne taj gis ko mu tëdd sama taal bu baax wulu jël ah na jëp mënu ko yàlla bu ñu bëri ci bàmmeel bi kenn bi day ñu ci maam Abdou Aziz taalibam dafa dee ñu indi taalibe bi tey mu naan ay doomam ñu ñu ne kan kenn mooy ànd ak ñoom ci biir paa bi ñu mu naan xar yi juróomi tonkal ni sëll mu ne kan kenn mooy ànd ak ñoom bi ci biir bàmmeel bi wéttali ko mu ne leen nañ leen jaamu ji yàlla man maay sëriñam maa ngi nii digg bi nañ leen jaamu ji yàlla moo wóor yàlla loolu doon la mooy dëgg bi nag da ngaa bëgg aljanna da ngaa bëgg yërmande yàlla da ngaa bëgg dajeeg yàlla doo am problème mani te amul yàlla te sellal loolu rek la mbir mi daal loolu la bu la nit jëlee utal la liggéey ñëw la ba ñu ambassé la ne la fii de ah lay tax nit nga continué ko nag esclavage la ah lay tax nga continué am fa jàmm weer dee nga taalal la fa ñu teg waaye waaye sëñ bi di ci waaja yaay sang teel di koy teel bu fekkee ay birig la yu ñu leen a rangaleel nga koy di rangaleel ku la ne kaañ matt bi booy matt bi nga ne ko waaw gaañ bi waaw ma jot ba may liggéey wala gars yi ba mu ko ba dimanche matin la matt bi dimanche matin ma ngeen gis mat bi mel leen di matin lu ba amul parce que leen di gars yi ci si liggéey ñetti fan ñoo nga fi kan loolu dafa leer kon nag man nañ nekk ay nit normal teg mbir mi ci yoon kooku mooy doon juróomeel bi mooy al indimaamu li wax bi rahman samaratu taqwa meññeetu ragal yàlla ëllëg àllaaxira mooy da ngay bokk ci gars yi yàlla yi da ngay bokk ci délégation yàlla yàlla nee na wa ma naxsuru lmuttaqina ila arrahmani wasdan wa nasuuqu lmujrimina ila jahannama wirda waa aljanna bu ñuy dem ci yàlla mbooloo la ñuy nekk malaaka yi wër leen naan leen salaamun aleykum yàlla na jàmm nekk ci yéen kulu wasarabu hani'an bima aslaftum fil ayyaamil xaaliya lekk leen naan leen yaataa yumbe leen ndax leen lii kat yéen yéen a ko liggéeyee kon aljanna ay liggéey la moo koy yóbbu liggéey juróom benn wàll te ci la ñu jeexale mooy alfawzu bil janna alfawzu bil jinaan wal anhaar wal maqaa'id inna almuttaqin fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidq inda malikin muqtadir yàlla nee na ñu ragal yàlla ëllëg dinaa leen dugal ci ay aljanna dinaa leen dugal ci ay tool yoo xam ne aljanna yoo xamante ne dex yi kër yi ci kaw ay dex la nekk ci ay place yoo xam ne place yu am solo la place yu dëgg dañuy toog jàkkaarloo waaye aljanna bu ñu duggee aljanna dañuy toog jàkkaarloo aljanna amul wanante ginnaaw aljanna kenn du ko dugg sax di gis sa mbokk di ko naroo ndax yàlla buñ ko gaaw dugg aljanna yàlla day dindi ñagg ñagg yi xol yi waaw rabbana ixfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu xill googu mbañeel googu moom la yàlla di dindi buñ duggee biir aljanna dañuy toog ci ay lal daal di jàkkaarloo mutaqabiliin nekk di kontaan yàlla dindi mbañeel bi dindi nooneel bi cafeel la yàlla di dugal suñu biir yàlla yàlla may cafeel boobu aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilah mbokk mi yàlla na ko yàlla fay ngeen ngi fay ginnaaw loolu xam naa affaire contri lu jëm ci contribution moom dañ koy aj ba gën a ñoom ndax moom waxtaan bi alhamdulilah daal waxtaan bi moom mën na amul dara ñu ci mën a yor li ñu mën a ubbi tey mooy buntu bi nga xam ne ay laaj la képp ki nga xam ne yor na benn laaj bu aju ci thème bi mun nga ñëw nga laaj ko ustaas bi insha allahu taala bu fekkee du doon laaj bu fekkee ni doon am kër te di julli te moom ak kër ñëwul kër gi yéen a ci yem est ce que jar na nga julli kër gi wala ni nga defal loolu wala bu fekkee moom day julli kër gi toog ëllëg wala day est ce que laaj bi sax on est ce que julli bi moo ko fi julli mooy kuy julli tey bàyyi suba wala ku ci une semaine bàyyi suba wala ku ci koor wala ku ci suñu rek ah ça mooy mooy yéefar bi su laaj bi laaj boo jeexee nag dafa fekk yow amoo amoo xaalis yoo xam ne mën nga jël kër gi est ce que war a jël kër gi est ce que sonn nga alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awalan mooy man taraka shay an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla dina la indi lu ko gën lépp loo jàpp muy lu baaxul ñu wax la yàlla nga bàyyi loolu ngir yàlla wallahi alazim balaa semaine di ñëwaat yàlla jox la lu ko gën na fekk muy lu dëgg ci yow koo mënta dëkkal moo xam sa papa la moo xam sa yaay alxuraan moo ko jàngal wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagda hatta tu'minu billahi wahda mbañeel noono ba alaxira jox na suñu diggante ak yéen ba ngeen gëm yàlla dong ibrahim diggante ibrahim wala tajid qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaaduna man haada allaha wa rasulahu walaw kana abaahum aw abnaahum aw asiratuhum aw irwan yàlla neen doo fekk gëm yàlla gëm alaxira du bëgg ku weddi yàlla weddi alaxira nee na donte baayam donte seeni mbokk donte ay doomam ku mu mënta doon bu dee sa jabar la bu dee sa doom ku mu mënta doon kan ko war a bàyyi jàpp ci yàlla te du ay nit kër goo xam ne nag yéen yéen a fa woon moomoo kër gi ñoom moomuñu ñoom duñ julli yow sa ëwalan te mission ci ñoom mooy nga waar leen waar nga leen waxtaan nga ak ñoom tegal nga leen ay kaset yu wax ci ñàkk julli lànk nañ dëgër nañ bopp wala taziru waaziratu wizra uxra ba seeni bàkkaar doo ko jël yow say bàkkaar ñoom duñ ko yen nga bàyyi leen neutre ci ñoom bu dee say mbokk nag amoo droit noppi wan vir asiratakal aqrabin waa waaral sa mbokk yi la jóge chaque jour da ngaa war a dëkk ci seen i nopp di leen waar gu dégg boo set ba ñu taxawal julli bu fekkente ne nag kii julli moom day julli tey suba bàyyi tisbaar wala bàyyi taksaan ñëw julli timis comme Sénégal li ñu ko defee Sénégal ñaari julli la ñu respecté suba ak timis dañ naan suba day julli ndax nga am barke timis julli ndax seytaane yi duñ la laal bu doon ku mel noonu la nag kooku dafa jar a waar kooku mooy jullit bu kàccooru kooku dañ ko war a waar dañu yëg ne julli kenn du ko tardeel inna salata kanat alal muminina kitaban mawqut ki nga xam ne nag mooy yéeféer mooy ki ne man julli laa mais bon julli taxu te yóbbu nit aljanna yi loolu man jaru may julli o kooku yéeféer fii donga ku dëkk ku mel noonu loolu nga génn ko sufe waaw kii dafa laaj mu ne fii la ñuy laxal ci bopp yi fekk du moom est ce que islam daf koy tere wala islam daf koy tere yone nee na laana allahu alwaasila wal mustawsila yal na yàlla sori yërmande yokk kawaram ak ci ko ko yokkal maadaama laxas nañ ko ci kawar gi rek yokk nañ ko ci mu yemul rek ci tere waaye yonent dane yal na yàlla sëri yërmande ci def loolu
kii dafa laaj nga am sa xarit boo xam ne yéenay fanaanandoo ci benn nit mais koor ba koor lay julli yàlla def na bu koor gi paasee loo mënta waar du ko dégg léegi maanaam lan mooy doon taxawaay foofu daal yow julli
waa kooku mooy comme li ñu waxoon kële rek mooy nga tarxib ko indil ko atte yi nekk ci bàyyi julli ba mu xam ko saa yoo defee loolu nag ba mu wóor ko ne moom xam na léegi atte yi nekk ci bàyyi julli mu bañ continuer ci loolu bu yow bu yoboo nga luwee ji wala nga génn néeg bi bàyyi koog néeg bi parce que ku dul julli moom daganul dëkkal ci kër su ngeen demee ci mu taariku sala seet utal yi def ko fa def kon loolu dafa war a leer ku dul julli daganul dëkkal moom ci kër aw wala nag balaa ngay def loolu waar ko targib ko indil ko atte yi indil ko aaye yi wan ko hadis yi wan ko àllaaxira ci biir julli bu dekkee ñan lay bokkal safara bu ko yàlla dugal yonent sallallahu alayhi wa sallam ko su loolu lépp leeree nga waxtaan ak moom mu lànk soo ko mënul génne yow génnal ba ko
kii li mu laaj mooy ngay julli ci maanaam nga nekk ci kër di julli ñu teg musique est ce que dégg bi nga koy dégg dafa am li muy def sa julli bi
xanaa bu fekkee yaa ngi koy déglu dégg aji kontante olof yi nag dañoo léet nee na mag lu ko tere nelaw xelam a nga ca mag lu ko tere nelaw xelam a nga ca su fekkee nee na ba nga ne allahu akbar yaa ngi sa xelam ca musique ba laa sa julli day yàqu su fekkee ndene nag yow faalewoo ko soo nekk ci amul la benn amul la benn bakkaar su ko fa teg moom moo am bakkaar am naa yow moom amoo ci benn bakkaar
salaamaaleykum mbokk mi day laajte nee na ndax jigéen buy dund sunna am na droit bëggante ak ki nga xam ne du dund sunna am na ci atam
jigéen bi dund sunna ndax am na droit bëggante góor gu dundul sunna ah man de fekkee man maa joxe samay atte man jigéen bi dund sunna dama naan ko mu uti góor guy dund sunna ndax dërëm ak dërëm ñoo ànd ñoo mën a ànd waaye dërëm ak duubal du na ànd mukk yàlla dana innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat waaw innal munafiqina wal munafiqaat wal mushrikina wal mushrikaat waaye innal muslimina wal munafiqina yàlla waxul loolu bu jullit bi gëmee loolu nag ne moom da koy def ah ma dem du leer de du baax de parce que mënta nekk ci gëm diine ak ci gëmul diine mënuñoo sëy ñi ko fi def ñëpp rëcc nañ ko góor ñi ko fi jéemoon dama koy daawa rëcc nañ ko jigéen ñi ko fi defoon dama koy daawa rëcc nañ ko kon daal l'essentiel góor ne da nga bëgg a dund diine dama nga uti jigéen boo xam ne yaa ngi moom yéen a bokk benn aqida nga takk ko kooku moom lan la lu mu am ay manqué manqué da ngay mottali julli da ngay mottali rek sàngaay bi da ngay mottali jàng da ngay mottali am maa am ci benn jëkkër joo xam ne samedi mu solu nana dañ ma invité benn soirée ah booy dem nga ñëw ñu dem ah nga toog di jooy léeg-léeg mu toog jël cigarette am ne ko tas taal ci biir néeg bi léeg-léeg mu ne musique am ko rek sàcc affaire yi di sakaar naake yow nga toog mënoo ci dara te moom loolu la gëm ah balaa caag daal yàlla wax na ko wala tunkihul musrikaati hatta yuminna yàlla ne wala amatun muminatun xayrun min musrika wala waajabakum ne wala tunkihul musrikiina hatta yuminu wala abdun muminun xayrun min musrik wala ajabakum waaye nee na yow jullit bu góor muy takk yéeféer bu jigéen lu mu rafet rafet rafet lu mu xeesal xeesal lu mu meesi gudd gudd lu mu lëkkaraa bi melax lu jumbax aw di xóot bul takk de bul takk de bul takk de yàlla nee na bis boo ko takkee dóor nga sa loxo ci ëkk waaye yow it jullit bu jigéen waa ji lu dëngal bi rëy lu mu direeku lu mu rapport rapport lu mu wëy wëy boo ci duggee ay korose rek ak ay mbëkk nga ciy jëlee yàlla moo ko wax jazakallah xayran
jazakumullah xayran léegi mbokk mi dafa laaj parce que waa ji nga xamante ne day tëf cigarette war nga julli ci ginnaawam
cigarette moom ñetti njëriñ la am cigarette cigarette tur bi siin bi sikk la kaaf bi kéeféer raagi reewande yaa gi yàq taa gi tësay bokk bind leen ko cigarette cin gi sikk la kaas gi kéefee raa gi reewande saa gi say bokk ku fayul say bokk doo ko def kii tox cigarette bu ko saxee daal di taal xëcc bu taalee almet bi naan tos kare mu teg ne yàlla mooy naa la fur yàlla yi ne yaa ko wax mu ne sikki sàkk nekk yàlla mu ne siyeel mu ne nii yàlla mu ne tamponeel mu ne nii cigarette nag ñetti njëriñ la am ñetti njëriñ ki koy tox xaj du ko mbow tox ko cigarette xaj du ko mbow du bi jaaw sàcc bi sàcc bagage am da ngeen ma tox ko cigarette xaj du ko mbow xam ngeen ko xaj du ko mbow su guddee fan yat lay yor ku yor yat xaj du la mbow xam ngeen wax du bi jaaw day gaaw a dee xam nga dox sàcc bi sàcc alalam du nelaw guddi ku nelaw guddi ku du nelaw guddi sàcc bi sàcc say bagage affaire gënne dañu wax usaa bi nee na mën nañ gënne ginnaaw laa baas mais nag ci jàkk moom bu kenn jiital ci jàkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax innal malaayika tata'azza bima tata'azza bihi bani aadam banu aadam waaw waaw ku leer a laaj bu mu jóge suñu jàkk te laaj xet bu bon la cigarette moo gën a bon mën nañ julli ci ginnaaw am ci kër yi ndax am am maa jàkk moom beneen bi mooy yenn nag ku ñu gis yow banditisme bu feeñ bu la kenn jiital banditisme bu feeñ maanaam mbirum kàcc coore bu feeñ mooy yàlla bu feeñ bu ñu ko gisee ci yow bu la kenn jiital ci mbooloo mi mën naa jiite nag keneen ci am maa jamaa salaatu jaamia moom dañ koy fut ci moom